marhaban sanction di ay daan yu ñu daal di ci kaw Mali moom la mboolem yéeni kaay xëyee ni ki tey jilee Le Soleil ne ñu xàll yu dox ci diggante Dakar ak Bamako daal di koy féexal ginnaaw bu ñu yëkkatee ay sanction yu ñu gàlloon ci kaw wa Mali suñu naatango yi ne ñu ci wàllum dem dikk téeméer trafic yoo jël daanaka juróom benn fu ak juróom ñetti ñëpp fi ci port bu Ndakaaru la ñu doon jaar ngir mën a utali Mali Mor Talla Kane directeur exécutif bu confédération nationale des employeurs bu Sénégal jàpp na ni li fi jot a jaar ci diggante CEDEAO ak tribunal yi dina bàyyi ay njeexital ndaxte daa dina xamle ci biir yéeni kaay la Soleil ne yi la daan di ay sanction yu ñu gàll ci loosu Mali waruñu ko woon jël benn yoon rawat na nag ci wàllum kooma yéeni kaay yi nañu ci juróom benn fukk ak benneelu ndaje di sommet ordinaire bi njiital réew ak gouvernement bu CEDEAO doon amal niki ci dimanche gi ci Accra fa la ñu jëlee dogal bu ni mel la waaye bu dee daan bu ñu yëkkati gàll ko ci njiitu Mali ya jëmale ko ci ab alamaan loolee moom ba léegi amut genn coppite yéeni kaayu enquête nañu Mali daa dinay mu toll nii ndaxte woon ci seenu loos dafa mujjoon fatt réew ma jàpp ko ci juróomi ñeenti fan ci weerum janvier yéeni kaay le quotidien daal di koy feelu dëggal xibaar bi ne Mali daal dinay noyyi yéeni laas itam dëggal xibaar bi nañu CEDEAO daal dina yëkkati ay daan yu mu gàlloon ci kaw Mali mu jàpp ne kon lu ni mel deful dul daal di askan wi fa yeewoo yéeni kaay Walf Fadjri nañu jéego yu autorité Mali tek ci yi la semaine génn jëmale ko ci dellu soit ab ordre constitutionnel daal di yàq yéenekaay bi dellu siwaat ci film li mu jàppee abu yaradiku di maanaam le film de l'indiscipline yéenekaay bi nañu ay table ban daal la élèves yi daal di jàpp dàmm yàq ay fenêtre xotti seen i ay cahier mu di ay élèves yu ne ci quatrième C bu lycée Ousmane Sembène bu Yoff loolee waral yéenekaay bés bi la journée ñu tëjug l'école gi dafa mujj viré ci ak caay-caay fukk ak juróom benn ci ay élèves lañu daal di identifié ne njortu nañu ne ñoo laalee ci mbir bu ni mel waaye ba fu mu toll nii Ousmane Dieye am lu toll ci fukk ak juróom ñetti at moom dong la ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi te bu moytuwut tey jile dinañ ko defere ci parquet ba jàngeen jëf